sëriñ Mouhamadou Lamine Baara ibnu Cheikh Mouhamad ibnu Cheikh Sëñ Xalil moom Cheikh Mouhamadul Fadal tey jii ñu ñëwoon Touba ziar si Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xamante ni si moo fi toog jotaayu Cheikhul Khadim di ko ñaan mu gën fee yàgg waaye avant loolu jaar nañ ci buntam bi di sëñ am ni moom sëñ Modou Mbenn moom maam Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw ziar yooyu ñu defal yëpp nag doon ko def ci turu daahira bii di Jazboul Mouride ba woon xam naa danañ ñëw incha allah leeral lu waral ba woon ba. ànd koog porte parole daahira bi nga xamante ne si mooy jës bul murit ba woon muy suñ sayfu kon dañuy jox suñ sayfu kàddu gi euh, mu daal ñu si indil ay leeral bisimilah suñ sayfu. ok salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki daara ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare waaye di jiital ci nuyoo boobu ak ziar bi Cheikh Mamadou Amine mi euh, di ñaan suñu borom mu yàggal ko lool te ma ànd ak wér ànd ko jëwriñ ci sëriñ Xaadim Fay comme ni ko sëñ Basiiru waxee. xam dañ ko def résumé bu gàtt rek pour ñëpp mën cee jot yàlla dogal na itam uh, ñu njëkkee ci buntub maam Cheikh ibrahim Fall Baawul mouridin muy sëriñ Amdi modu Mbenda Fall jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall Baawul mouridin uh, bañ demee siyaare ko wax dëgg yàlla am fa lu kawe sun njort uh, jëbal ko li nga xam ne mooy ji mu boole ko kent gu màgg ak ñaan mbooloo mi àgg fépp fa jugee itam sun borom dogal na euh, ñu jàll ci cheikh Mouhamadul Muntaxa bañ jëmee itam sun borom dogal na ni fekk nañu sëriñ bi mu fatu waaye ñu fekk fa jëwrinam ñu fekk fa jëwrinam euh, sëñ cheikh sëñ cheikh Abdou Latif euh, mu dalal ñu dalal leen wu kawe nag moom nag ci ndigalam ci ndigalu cheikh Mouhamadul Muntaxa ci tur wi nga xam ne defoon nañ ko jësbul murit ñu jot ndigal ci moom ngir def ko bidaayatul xitma muy loo xam ne itam tew tawféex la ndax képp ku bëgg a liggéey ñun la yoon wangook yaakaar naa day yombal sab liggéey loolu nag nekk loo xam ni am nañ ci mbégte bu baax a baax euh, muy soññee ak sasuure woo xam ni waa daara ji war nañoo xam ne kon doorub liggéey mooy bidaayatul xitma tàmbaleb liggéey nag képp kuñ ko wax am nañ ci yow yaakaar ju tol ni xam ni da ngaa war a liggéey kon nag mbokk taalibe yi soññe amaat na ci sëriñ bi ay ca murit ay ca murit ay ca murit wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Sayfu kon mbokk taalibe yi mbokki jullit yi ñoo ko déggandoo muy bii di Jazbul Murit biñ defoon ngir benno liggéeyal ci sëriñ Tuuba moom la ñu seex Mouhamadul Muntaxa jox tur wii di bidaayatul xidma euh, diaspora nga xamante ni si mbokki taalibe yi nekk fii ci Sénégal ñi nekk bitim réew bitim réew suñ ko waxee Asie Amérique Europe fépp rek ñu ngi ci Afrique euh, di ci liggéeyal Sëñ Tuubaa nañu xam ne lañ defoon ba ñëw fii loolu day bokkatut ci liggéey bi nañu xam ne lii ñu dënmal mooy liggéey bi nañu bennoo gën a booloo gën a liggéeyal sëñ Tuubaa te xam ne lépp lu ci waaye defoon mbaa nga yéene ko ci sa jëf jooju mbaa sa yéene jooju tabbi na ci loxoy maam Cheikh Ibrahima Fall waaye lu dugg ci Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Muriidiina àgg na ci sëñ Bamba te noonu nii lañ ko defee muy dem ci seex Cheikh Mouhamadou Mountakha jox ko suñu addiya mu bindal ñu lettre bu tontu moo nekk nii kon ñoo ngi sant bu baax a baax mbokk taalibe yi ci def seen addiya ak seen yéene ak lépp waaye tamit di ci dolli ne liggéey bi gaaral nañ ko ak seex seex Abdul Karim Mbacke moom seex Mamadou Fadal gaaral nañ ko soxna soxna maam Faati Mbacke moom seex Abdul Xaadir euh, muy liggéey boo xam ne kat nañ njort ne am na garanti kon nañu góorgóorlu te gën see yaatal suñu bëgg gën see yaatal suñu yéene gën see yaatal suñu ñi nga xamante ne si wër na nañu bu ñu leen mënee xëcc te gaaral leen liggéey bi ñu def ko kon dañuy jox suñu xaadim mu sànni ci kàddu rek bu ko defee ñu daal di yëkkati jotaay bi bisimilah suñu xaadim. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi mu ngi nuyu bu baax a baax te ci jiital kilifa jotaay bi muy Serigne Bara Mbacke moom Cheikh Ibrahima xalil moom Cheikh Amadou Fadl di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko te wéral ko nuy sant nag ñun suñu kàddu kàddu cant lay doon ci mbooloo mi yëpp ndax bu fekkee ne dañoo ànd ak ñoom ci liggéey Sëriñ Tuubaa gi ñu def ñu ñu jiite liggéey bi euh, te kenn ku ci nekk. taxaw taxawaayu yaa jiite liggéey bi ba nga xam ne ñun ñi nga xam ne lañ wax ñoo ko jiite yan wuñ ci dara wala diisut kon mat na ñu sant leen bu baax addi yi bañ ko yëkkatee kenn ku ci nekk def nga ci la nga mën ak loo mënut ñu leen di ñaanal mboolem ku ci jëf ak ko amoon yéene jëf ci suñu borom defal la ay xéwal yu yaatoo yaatu barkeb seexul xaddim balaa ren ji déwén daal ah, suñ borom képp ku ci jëfoon ak ku ci amoon yéene yàlla yàlla defal la ay xéwal yu la ci barke bis bi bisub tey jii ñuy sant ñëpp nag tey wax ne liggéey bi door na ndax dañ ne ab gor bu bu bu bu bu waxagut moom moom làmmeñam waaye bu xasee wax làmmiñam ko moom kon ñun nag ñu ngi doog a wax ñu ngi doog a jaayante suñu diggante ak Sëñ ñoo ñëwal suñu bopp kenn neexaluñ kenn fayuñu ñoo dem ba ci Sëñ Muntaxa ne ko dañ laa bëgg a liggéeyal mun nañu nag buntub liggéey bàngoog kon dañoo war a liggéey liggéey nag boo koy def dana metti dana yàgg dana tàng danga ci jànkonteel lu nekk luñ ci mënti jànkonteel nañu xam ne ñun ñoo fas yéene liggéey Sëñ Tuubaa te ñoo xam ne mag ñi kat dajoon nañ lu raw luñ nar a daj ndax ku jaayanteeg Sëñ Tuubaa ba dem Sarsara kon fa fala fa la jaayante mën kon luñ ci mënti dégg wala ñu mën koo gis nañu xam ka ñuy liggéeyal daj na lu raw loolu nañu takkaat suñu laxasaay te xam ne defaguñ dara lañ defoon démb wala addi jiñ jébbale tey nañ fàtte lépp te xam ne dooraguñ lépp luñu luñ yéene liggéey Sëñ Tuubaa rek ci ñun la des waaw ñu ngi soññ mbokk bi yëpp ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi te xam ne liggéey sëñ Tuubaa moom kenn du ci kenn waaw nga xam ne sëñ Tuubaa moom euh, ragalul bor daamu pay kon fa la ñuy tënk kàddu yi di soñ mbooloom yëpp ñu gën a takku gën a bennoo di ñaan sëñ Tuubaa defal ñu tawféex waaw mu ne sëñ tu ku ne mosoo gis ne ku ne sëñ Tuubaa laa liggéeyal ba samay morom raw ñu mu ne bës bët mosu dégg bët mosu koo gis nopp mosu koo dégg làmmiñ mosu ko tudd waaw hmm, une sëñ blaat nee na kuy liggéeyal sëñ kuy liggéeyal sëñ Tuubaa bu añ jotee conti continue la boo dee liggéeyal keneen bu añ jotee nekk fa ñukk te dem añ waaw te xam ne boo añut ñu añ bàyyi la mu ne waaye bu dee liggéeyal sëñ continue continue rek da dox ba ci yàgg ñu dab la ne la sa añu gi waaw kon amul pertement sëñ Tuubaa nee na ñetti yi dalu ko du juum du jaawale du fàtte ne kooku nag yomb naa liggéeyal ah kon jërëjëf Mbacke ñu ngi santat bu baax a baax mu mel ni kàddu yooyu mu ngi bàyyi ko ci sëñ Modou Lamine Bara moom mi nga xam ne mooy mooy kilifa liggéey bi di ki ñun dañ ko faa nekkal rek ndax buñ dee liggéey suñ Tuubaa ba sëtub sëñ Tuubaa ñëw ànd suñ biir mooy borom barab ba ñun nag dañu faa teg ndax fi ñu toll nii ñun mënees nañ ñoo folli waaye moom kenn mënut koo folli waaw kon nag liggéey baa ngoog noo ngi ñaan suñ borom ñu day ci ngërmal sëñ Tuubaa barkeb sëñ bi waa aaxiru da'waanaa an alhamdulillahi rabbil aalamiin jërë ngeen jëf mbokk taalibe looloo nekkoon liggéey bi nga xamante ne si daahira bidaayatul xidma loolu lañ leen andiloon tey Euh, di sant mboolem ki nga xamante ne si ñëwoon nañ ci ziar bi te ànd kok soxna yu tedd di soxna yu daara ji kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu